asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kàddu yii de maa ngi ko jëmee ci sunu sang bu tedd bi di cheikh muhammadu muntaka di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak di ko massawu coono di ko sant di ko gërëm ci taxawaayam ci jamono jii ñu toll bi lislaam feeñagul ci sunum réew day daan def bu xare amee ñu am ñu ñu jiital ñuy tagg seeni seeni buur ak di wax seeni njàmbaar ak di leen fàttali waaye nun day jàmbaaru lislaam lañu amee joo xam ne jamono jii ku am tuuti yëg-yëg rekk di xam ne metti na ci moom diis na te coono yi bari na te wax ji fu ne lay jóge jëm ci moom ku ne di ko di ko yenn di ko sëf di ko wax mu dëkke ko bëccëg bu guddee ñi mu ko séqal bëccëg dem tëddi ci seeni lal moom mu yéeg ci deram di jaamooti yàlla di ko jéggalu di ko tuubal askan wi yépp ba fajar ñooña dillu siwaat ñii lu baax lañuy wax ñii lu bon lañuy wax te ñépp mëneesu leen ñàkk déglu mëneesu leen ñàkk dégg mbàkke yow doo boddi kenn doo bëccëngal kenn doo toroxal kenn doo ker sa kenn waaye nag xam nañu ne sëriñ Tuubaa nga teg ci sa kanam moom nga teg ci sa ginnaaw moo la féete ndeyjoor ak càmmoñ kaw ak suuf ngërëmam rekk mooy sa yitte mooy sa bëgg-bëgg moo la tax a nekk ci kaw suuf di dund di noyyi lu dul ngërëmul sëriñ Tuubaa bugguloo ko waaye sa ngërëm day du tuuti ndax dangaa tolloog jamono joo xam ne sëriñ Tuubaa day daf laa defal tawféex yu rëy donte mënuñoo xam lépp ndax moom day ci nekkam ci njaareem <coughs> ci la ubbee jumaay njaareem jooju yow it ci sa doon boroom Tuubaa ci nga ubbee jumaay masaalikul jinaan ci nekkam ci njaareem ci la tawat su bon soosu di balaa bu rëy di peste ba amoon ci sag nekk boroom tuubaa ci la tawat si lëmbe jamono ngeen bokk jamono mu mel ni la woon démbay tey tolloo ay noon noon yi dikk ak seeni kàttan ak seen pexe bëgg a jëme jullit ñi fu kenn xamul tey jii tëj nañu kaaba ga tëj jumaay yonent bi sallallahu alayhi wa te jàkk ak jumaa yu bari ci àddina néewal mbooloo yi jaamu yàlla néewal mbooloo yi tudd yàlla nu gis sa taxawaay bu dëgër ci lislaam gis sa taxawaay bu dëgër ci tuuba te gis ne xeex bi wéet nga ci lool te kenn nga ci nga waroon a bari ay soldaar ak i saaba yu la wër taxawu la jàppale la ànd ak yow liggéey bi ba lislaam bi am ndam waaye mu mel ni jamono jii ñi xam li xew bariwuñu ndax jamono yi pexe la mbir dana nuru lu jóge ci yàlla tey mbiru seytaane dong te tawat sii ci la bokk li ci juddoo lépp ci ay safaan jëm ci diine lislaam jëm ci jullit ñi jëm ci àddina bi yépp rawatina ñi néew doole lépp ay pexe la waaye gis nañu sa taxawaay yëg nañu sa taxawaay ñun ñiy jébbalu ci sëriñ tubaa yaakaar ko àddina ak alaaxira te di la xoole jëmmi sëriñ tubaa tey jii ci kaw suuf noo ngi lay yëgal ne noo doxe rekk sagal nañu noo defee rekk sagal nañu sa yëngu ak sa dal yépp ndam rekk lañ ciy yëg ak yokku rekk lañ ciy yëg am kilifa de mooy li am solo te am kilifa mënta ñàkk ku yàlla dimbalee nga am kilifa gu ko mat sëkk ab taxawaayam mag ku sëkk dangay sant sunu borom mi la ko defal Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na nga fi yàgg yàlla na nga wér yow mi sëriñ Tuubaa yellale nga toog jataayam bi waxtu wi ñu toll ñi la am ñépp war nañoo sant sunu boroom ci li muy yow ndax sa taxawaay bii mooy taxawaay bi ko mat sëkk sa jëf rëy na sa pas-pas rëy na fi nga nu woo kawe na yàlla nangu nu dimbali ba yóbbaale ñu àddina sépp a ngi jooyi lislaam a ngi jooyi jullit ñi jaaxle nañu kenn xamul foo jëm waaye nun dey yow lañuy def jàkk noo jaar rekk noonaay doon yoon wi may lislaam ndam foo aw rekk dinañu fa aw noo doxee dinañu neex te dinañu ci ànd nañ la dimbali def la nanga defoon say kilifa nañu la bàyyeeg sa bopp te nañ la bàyyeeg sunu bopp ndax ñun de leer nañ la buñ la bàyyeeg sa bopp yaa ngeeg sëriñ tuuba buñ la bàyyiwul ak sa boppit yaa ngeeg sëriñ tuuba moo lay digal moo lay tere te lépp lum la digal loola rekk ngay def waaye day noo ngi lay tuubal di jégglu yàlla noo ngi sàkku ci yàlla ak njéggal ak yërmande waaye yow de noo ngi lay tuubal noo ngi lay baalu àq xam naa ne yaay gën a yëg coono yiñ lay teg ndax man man naa am xam naa bi ma la teg waaye ñépp xamuñu biñ la teg te bu yépp dajee ci yow ni nga koy yëgee kenn du ko ni yëgee ku dul yow sunuy ñaaw téef sunuy jëf yu ñaaw sunuy wax yu ñaaw sunu càggante lépp noo ngi koy jéggalu yàlla di ko jaare ci sa jëmm ji ndax xam nañ ne luñ gën a jub lu ñu gën a dëppoo ak njàngaleem lislaam ak njàngaleem sëriñ Tuuba mu gën a woyof ci yow waaye Mbàkke nu mën a mel ñoo ngi lay sant ñoo ngi lay gërëm lii bataaxal la boo xam ne ab taalibe sëriñ Tuuba boo xam ne yëg na ne kilifaam sonn na ci lislaam kilifaam taxaw na taxawaay bi mu war a taxaw ci lislaam kilifaam mel na ni mu war a mel moo koy bàkk di ko kañ moo koy jaajëfal di ko ñaanal moo koy ñaax ngir yàlla ak sëriñ Tuubaa mi muy liggéeyal fépp fu lislaam masa am ndam yàlla na ndam loolu doon sa ndam sa ndam lii ngay séentul lislaam te di ko ko wutal yàlla nanga ko amee nu ko kenn mësta amee fi nga bëgg a yóbbu yoonu sëriñ Tuubaa ak fi sa pas-pas ak fi sa tolluwaay nekk ci sëñ Tuubaa yàlla na nga nu fa yóbbu mbàkke yàlla nañu la noppal ci mel ni nga bëgg ñu mel ndax yow de ni ñu bëgg nga mel mel nga ko noo ngi lay sant noo ngi lay gërëm noo ngi lay sopp lool ci sunu xol te di la ñeewante ci coono yi ak ci lépp loo xam ne rekk mu ngi bàyyeekoo ci sa toogaay bii nga toog yal na lépp doon ngërëmul sëñ Tuubaa doon sa tawféex ñoo ngi lay ñaanal nga yàgg fi ñoo ngi lay ñaanal nga wér Mbàkke